dëkk bu bi di Touba barab bi koy dalal mooy këru xaside yi daay isbu di tabax ci biir complexe Cheikh Ahmadul Xadim di mu jàmbaar barab bu taaru boobu war a daral mbindum Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul am na lu ci dolli musée bii nag mu ngi tukkee ci ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général di murit ci waxtu wi nga xam ni mu ngi doon dalal ak ñu di ko jébbal nataalu Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ya feeñ ci réewum France te bokki taalibe yi nekk fagg woon ko dénk la ko dénk la ko isnaale ijaas yu gi ñuy gi ñuy defal xasida ñu wut barab boo xam ne dañ koy tàmbalee loolu ñu loolu la ñu dañ koy tàmbalee mise ñu këru xaside yi di bâtiment bu xereñ boo xam ne ñi ngi ko tabax ci lu ñu xayma ci ñaari junni mètre carré boole ci itam ci wàllu tabaxin noo xam ne dëppoo na lool ak lislaam waaye itam matale na sarti bépp barab bu ñu tabax boo xam ne dëppoo na ak jamono loolu sax may ko mu mën a dalal projet bu mel ni musée bii mën koo jëmmal. bi ñëwee ci ci liggéey man liggéey bi sax du gan ci man ndax yàgg naa fee ñëw fekk nañ fi liggéey boo xam ne am na fu mu toll maanaam ñu ngi toll ci wàll taaral waane donte mi ngi toll ci wàllu taaral pour wax leen di rek liggéey bi xam-xam moo ko lal ca njëlbeen ko ba léegi bi lu bees lii ñëwee mu mu nekk euh, ndigal loo xam ne ci sunu sang bi teet bi sëñ Muntaxa Mbàkke lay la jóge bi mu ñëwee biñ àndeek borom xam-xam yëpp biñ defee wër xool seet ko seetluwaat ñu daal di weccoo xalaat ne mbir mi naka lañ ko ci mën a sofe ba nga xam ne du gàllankoor lenn ci ci li taxoon a jóg këru xaxaside yi dañoo méngoo ci anam boo xam ne ah lii kat mën naa nekk ndax kii bi euh, nooy na nooy goo xam ni nu la neex mën ko ko wëlbatee loolu moo waral bi xalaat bu bees bi ñëwee bi ñu toogee wër dem doxantu ci biir këru xaside yi ñu daal di yéeg ci kaw ba ci suuf ñu daal di toog waxtaan ñu ci ci lu gën a gaaru ñu daal di am benn tënk boo xam ne génn na ko ñu ne ak lii sëñ bu bëgg kat mën na fee nekk te du am benn jeexantal boo xam ne day gàllankoor. maanaam lu bees lii ñëw lam fa fekk tamit dana ko ñomal ba nga xam ne ñoom ñaar daan mën a ànd de bu ci anam bu mucc ay keroog bi ndigal li bàyyikoo ci cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah daf ci daal di jublu ci saasi moo xam ay daje ak boroom xam-xam yi architecte yi ñi seen xam-xam màcc ci mbirum musée ak ñi nga xam ne ci wàllu taaral ñoo ko yor muy direction artistique bi ci Hizbut Tarqiyyah ak fone ngir xool nan la ñuy teeroo ak dalal ndigal loolu. ndigal moom taalibe bu ne dafa am lu dox sa diggante ak Serigne Touba mooy da koo jébbal sa bopp àdduna ak alaaxira loo ma digal ma def loo ma tere ma bàyyi amuñu bëgg amuñu bañ sëñ bi bëggam mooy suñu bëgg ginnaaw dafa bëgg ñu créer ko musée aménagé ko ko waajalal ko ci biir këru xaside yi te yàlla dogal na këru xaside yi yaatu na ndax 2000 mètres carrés ba pare am ñeenti niveau. su sol rez rez-de-chaussée premier étage deuxième étage incha allah dinañ ko ci def waaye nag lu mel noonu su ndigal di xasee am rek li ci ëpp solo mooy xam-xam bi pour nan lañ koy defee loolu nag moo waral tey jii mu doon bis boo xam ne dañu ñëw ci terrain bi ànd ak euh, ñi yoroon liggéeyu kër xasida yi euh, chantier bi ak tamit architecte yi. Serigne Youssou Diop jëwriñu daaru Hizbut Tarqiyyah mooy fas yéene jëmmal ci Touba. ci ndigalu mu Mouhamadou Mountakha Mbacké musée boo xam ne du naw benn ci yi nga xamante ni ñoom lañuy ñuy gën a xam ci àddina bi muy musée yi nga xam ne yii ci seen tur la yii ci limub nit ña fay ñëw yii ci seenu gis ci àddina bi fa la fas yéene musée bii ñuy jëmmal ci kër xaside yi ci Touba tollu fa. looy def faw ñu concevoir ko ba mu doon loo xamante ne suñ ko wanee sëriñ bi ne nii lañ ko nar a defee woy laa nee. wala mais wan ko ci ay euh, hypothèses yu bari moom la mu la mu la loolu la ñu def waaye li am solo daal mooy ñu xam ne euh, amuñu pas-pasu lu ñuy moomale Sëñ Tuubaa mu yées lenn loo xam ne am na ci àdduna ndax musée ku ne xam na ne boo demee réew yi gën a mag ci li ñuy pukkare woo di ko damoo seen musée da cee bokk ndax musée dafay delloo si démb waaye surtout li ñu delloo si ci démb mooy day saxal ay valeur yoo xam ne bu ko delloosee day tax ñi nekk tey xam ne dëgg mu ngi nii li nu war a mooy te jàpp ko mi ngi nii ñu gën a waajal ëllëg donc musée dafa taxaw taxawaay boo xamante ne boo demee Istanbul tey jii di nga gis ay jeexit yoo xam ne ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam la jóge wala nga dem yeneen musée yoo xam ne dafa nekk ci yeneen réew yoo xam ne ñoom dañ ko jox ak xam ci condition de conservation jox ko ak xam ci condition de conse de présentation jox ko ak xam ci tamit condition de euh, sûreté et de sécurité yëpp ñu bàyyi ko xel noo xamante ne mooy tax objet yi collection yi ak lépp loo xamante ne ñëw na dugg ci biir musée bi mu doon loo xam ne su doon def jundi atit dees na ko mën a gis di ko jëriñoo loolu tamit dafay loo xam ne xam-xam yi mu laaj loolu ñun suñ ñu xasee jox ndigal rek soobu nañu. xam-xam bi sax mi ngi ci ndax li may faral di wax ne ki lay sant liggéey moo la gën a xam li mu bëgg. yow nan koy defee ci xarale rek nga koy gunge ñun ci kaa ci gunge boobu nag ci leen ñëwee fii fekk fii ay kàngam yoo xam ni ba këru xasida yi tàmbale ba léegi ñoo ci nekk am ñeneen ñoo xam ni seen xam-xam dafa wàcc ci wàllu bërëb yu demee ne foo xam ni dañ faa war a denc war faa wone ay jeexital ci wàllu yoonu murit mu nekk ay li ko mën a firndeel mooy naataal yooyu jóge woon tugal ñëw fii ñu war a am foo xam daan ko fa mën a teg ba taalibe yëpp wala askan wi yëpp mën cee mën cee jote këru xaside yi di barab boo xam ne tabaxin wi taar na lool di barab boo xam ne itam dafa war a dajale mbindum Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ci loolu itam mu doonaale barabu sàkku xam-xam di barabu gëstukaay di barab boo xam ne mënees na faa fekk lenn ci ay jeexit yu aju ci sëriñ bi ak ci yoon wi muy ittewoo xam-xam bu yaatu boo xam ne biir yoonu murit ku ne xam na ko ci gëstu ak yaatal ak tasaari njàngaleem Serigne Touba teg ko ci xam-xam loole lépp nag am ci taxawaay ak njiitu Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des mourides. Euh, dëgg la dafa jaar ci nataal yi nga xam ne bokki taalibe yi sonn nañ ci wut ko euh, indil ko sëriñ bi dafa jaar ci loolu waaye sëñ bi moo am projet muy musée kon lii da ko ubbi waaye ku ne xam na Euh, yoonu murit musée boo xamante ne xalif général des murit moo ko xalaatal boppam euh, sosal ko boppam loolu day doon loo xam ne day ubbi waaye bu xasee bu ubbi du yem foofu loo gis rek sëñ Tuubaa na ma ko waxee woon keroog rek lu ne mën na ci am ay lu bëree bëri bëri waaye tey jii bi nga xam ne mooy doon way juru musée yi mooy musée Cheikh Mamadou Mountakha ci yoonu murit taxawaayam nag moom Hizbut Tarqiyyah lu jege juróom fukki at ci wàllu gëstu ak itam ay jataayu yaatal xam-xam ak i gëstu lu mel ni grande exposition yi ñu jëmmal ko boole ceeg maxaat bi di institut bi nga xamante ni di gëstu ci lépp lu jëm ci yoonu murit loolu lépp may na ko mu am lu ko mën may mu mën taxaw loolu jëmmal ko ci ndigg ndigalu sëriñ kenn amatul soxla kenn amatul soxla damay faral di wax ne àpp euh, bu gën a gàtt mën nga cee def liggéey bu bu la soob ci kaw nga ànd ak yéene ak Pastef ci kaw tamit nga ànd ci ndigal ndax kuy def lu la digalu dana am ku ñëw tere teral ne la kenn digalu ko ndigal gi nag moo ñu ñemeloo fi ñu toll mën nañoo wax ne euh, liggéey boo bu fekkoon xalaat bi mën naa nekk ci ay weer mën nañu wax ci ay fan lañ koy def ndax ndigal googu moo ñu ñemeloo donc loolu daal mu nekk lu am solo loo xam ni ñun dañ ciy dem ak yéene mais dañ xam-xam am na fu mu yem waaye yéene am na fu mu tàmbale waaye kenn xamul fan la yem. loolu waral mboolem takkatoo ànd ak jëwriñu daara ji ñi nga xamante ni itam lu isbu tarxee dugg ñu ànd ci ak moom di xarit yi di mbokk yi di am di jàmm yi te boroom xam-xam ñoom itam dikk nañu fas yéene ànd ak daara isbu tarxee ñu jëmmal musée bi kem ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général des mourides digle wu euh, képp koo xam ne xam-xam ñor na la euh, ak lu ñoŋal xam-xam xam nga ne di xalaat musée euh, barke démb rek gis ngeen surtout Cheikh Sidiya ñëw ci sëriñ bi indi ko ay barkeelu yoo xam ne sëriñ Touba moo ko seqawoon ak maamam man nag euh, tuuti naa ci woote ngir ñu ñoŋal li nga xam ne ëllëg nit ñi mën nañ cee jëriñu tuuti naa ci def ko waaye fas naa yéene laxasaayu ngir wattul ko sëriñ bi maa ko waa Hizbut Tarqiyyah yëpp ak mboolem ku dikk ànd ak ñun liggéey bi ndax Hizbut Tarqiyyah moom aw tur la rek waaye boo xoolee képp ku yaakaar sëriñ tubaa dama naan sax képp kuy wax ah ashadu an laa ilaha illa allah wa ashadu anna muhammad rasulullah xisbu xëy na bokk ndax tur la boo xamante ne day delloo ci jëmm jëmm ji mooy sëñ